dara waaye nag la ñu mujjee gis mooy direction générale des élections dafa mujj rejeté li nga xam ne mooy inscription Karim Wade maanaam daf ko lànkal na ko yow wuroo nekk ci liste électorale yi yow wuroo bokk ci élection yi journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy direction générale des élections ci atum 2018 fi nga xam ne fi la ñu sukkandiku mooy article 30 ci code électoral journal bi di Rewmi Quotidien nee na Karim ba léegi mën naa bokk ci élection ngi a ci li quotidien ñu xëy fekk fa na fi Diallo mi nga xam ne moo yor communication PDS dafa daal wax ne Karim Wade amul lenn loo xam ne dina tere mu bokk ci élection présidentielle 2024 bi di enquête xëy fësal ci xëtam mu njëkk na Karim Wade de retour gi di li na ko may ma yeggale na fi Diallo ci biir journal bi daat nay wax ne mbir mi réglé nañu ko ba pare te code électoral bu Sénégal moo ko daal di Karim Wade jot na ci ay droit Nafi Diallo la yéenekaay gi di L'As xëy di ñu xibaar naan ñu en tout cas ñun lu ñu gis ak li ngeen gis wuute na lool ndax am na ñaar ñoo xam ne seen xel màcc na jëm ci wàll wi maanaam ñaari expert yoo xam ne nee ñu Karim Wade daal dem ca Turquie bindu loolee mun ta tax mu bokk ci élection présidentielle 2024 lii tax mu bokk ci maanaam bu ñu ko amnistie yéenekaay gi di Le Quotidien yor yor xëy di ñu xibaar naan ñu Karim Wade ba léegi bu ñu waxantee dëgg génnagul ci mbàll gi ndax Karim Wade ba léegi li ko doon gàllankoor ma ngi fi ndax dafay gàllankoor Karim Wade article 30 di ko gàllankoor article 57 ba léegi ma ngi gàllankoor Karim Wade waaye article 120 ba léegi ma ngi gàllankoor Karim Wade loolee waa quotidien yor yor ñoo xëy di ko faram-fàccee journal bi du Source A xëy duñu xibaar naan ñi nga xam ne ñooy procureur yi nag yàggatul dara danañu bind ab liste liste boo xam ne ñi nga xam ne waruñoo bokk ci élection yi ñoo say nekk maanaam ñi nga xam ne dañoo ñàkk seeni droit liste boobee nag procureur yi léegi te ñu jébbal ko direction générale des élections liste boobee nag bu ci mooy du mën a bokk ci élection yi waaye nag bu dee nekkul ca liste boobee Karim Wade bind gi mu bind dina tax mu mën a bokk ci élection présidentielle 2024 maanaam nañu yónni yàgg li ci kanam rawuti bët yéene kaay gi di réew mi ko di jenxëy duñu xibaar ñu atte bi waroon a dox diggante Mame Mbaye ak Ousmane Sonko démb la woon waaye nag dañu ko mujj dàq ba juróom-ñetti fan ci weeru mai bi nga xam ne moom la ñu dëg ma la Birame Souleye Diop ci bi nee na lii lépp ay tappale mooy fexe ba Ousmane Sonko a bokk ci élection présidentielle nekk candidat bokk ci élection yi nga xam ne jàpp nañu ko 25 février 2024 Bassirou Diomaye Faye am na retour de parquet journal bi di Rewmi Quotidien Mamadou Sy Albert analyste politique nee na jamono ji li nga xam ne moom la njorto dafa njorto ne état bu Sénégal dafa bëgg a ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko waaye nag bu ñu ko éliminer loole mën naa andi ak pëccëxoo ci réew mi pëccëxoo goo xam ne mën ñoo xam kañ lay commencé waaye mën nañoo bañ a xam fan lay yem te nag li mën naa yàq image justice Sénégal journal bi de Les Échos xëy dañu xibaar naan ñu Bassirou Diomaye Faye ci kanamu enquêteurs yi daat nay dëggal nangu ne lépp li nga xam ne maanaam moom lañ ko wax na ko yàgg yaa ko bind wala yaa ko wax moom nee na moo ko wax moom Bassirou Diomaye Faye daat nay ñaawlu bu baax a baax anam bi nga xam ne moom lañ ko tegee loxo journal bi di Vox Populi xëy duñu xibaar naa ñu élection présidentielle 2024 naru tey yomb mën nañoo am ñetti libéraux ak benn socialiste ak benn anti système yéene kaay gi nee na Karim Wade Idrissa Seck ak Khalifa Sall jamono ji ñoo ngi dabu li nga xam ne rëccoon na leen ci lu jëm ci wàllum politique na bu dee ñaar jamono ji ñoo ngi manœuvrer Karim Wade yeewu na Idrissa Seck lànk ba tëdd sa naaj wa bañ a dee ci lu jëm ci wàllum politique Khalifa Ababacar Sall jamono jii ma ngi suqali ko Ousmane Sonko ba léegi ma ngi résister Macky Sall moom jamono jii ma ngi ñoqali di dem ci loo xam ne daf koy nëbb yéen kaay gi di Walf Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu mbaadu diil jamono jii dafay xeeña diggante Idrissa Seck ak Macky Sall mbaadu ci xelu askan wi jamono ji moom la ñu nekk di ko foowee yéen gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Idrissa Seck wax na lu leer ñaar ñi nga xamante ni ñooy ay farandoma nee na leen bu leen tontu nga xam ne nag jamono ji ñooy jóg am na si ñoo xam ay sàmba sugum ga yi la ña maanaam tekkiwuñu lenn bu dee nag Macky Sall waxul bu leen tontoo nga xam ne mooy directeur de cabinet am di Abdoulaye bu leen leen tontoo Idrissa Seck daal na maanaam dee leen tontu bu dee Macky Sall wax na wala Abdoulaye Daouda Diallo ne mooy directeur de cabinet Macky Sall yéen nga xam ne nag ñooy waa Pastef jamono ji sonal nañ leen lool ndax ki nga xam ne mooy coordonnateur waru ndomb jamono ji ma ngi ci kaso bi ki xam ne nag mooy coordonnateur Nemmeeku Tour ma ngi ci kasu bi responsable sécurité Ousmane Sonko ma ci kasu bi bi yor communication Pastef jamono ji takkal nañu ko bracelet électronique journal bi nee na secrétaire bu Pastef jamono ji ma ci kasu bi yéen gi nag nee ki nga xam ne mooy président Pastef di ndayi mbi liggéey Ousmane Sonko moom dañu ko menacé yéen kaay gi nee lu toll si ñeenti téeméer ci militant Pastef yoo xam ne tamit ñoo ci biir kasu a